waaw ñu bëggoon xam rek sa présence fii tey si conférence presse libérale. Nidof il fait partie du hip hop c' est notre c' est best gis nga hip hop bi mën nañoo rayande suñu biir mais koo ci laal ñëpp jugandoo te Nidof c' est un élément du hip hop. il y a sa famille politique il y a sa famille des activistes mais nous on se doit d' être là parce que fait partie du hip hop suñu waay la Nidof nit ku baax la et puis nit ku ñu yàgg jëflanteel la mun ta nekk ci tolof tolof ñu koy seetaan il faut qu'on vienne lui dire am na foo juume am na loo def lu ñu d' accord waaye ndéem jéggalu woon nga defe naa warta woon yegg ci jàppuwaay dañ ko waroon a xool naka lañ koy euh, defaree rek mais bon bàyyi ma noppi balaa waa Sénégal yi may ni lay problème. waaw mais gisoo rappeurs yi bi leen Macky Sall recevoir nit dof daf leen clashon est-ce que gisoo na loolu bi mu defee poste ba pare jéggalu est-ce que gisoo na loolu joué na ci pour ñu jàpp ko. ba je saurais pas dire parce que nit dof clash na gars yi demoon si euh, pale bi. suite à l'événement de l'annulation de son concert ça n'avait rien à voir avec dem si palais bi pour politique moom il n'a pas clashé les rappeurs dañu am seen ay rappeurs yoo xam ne dañu bëgg ñu organiser loolu la ñuy def clash maintenant c'est en en connotation ak euh, show of the year maintenant boo jëlee loolu nga collé ko ci euh, Simon demoon na palais am na ay gars yu nekk fii yu bëri yoo xam ne demoon nañ fale ñëw nañ soutenir ko c'est que hip hop bi ñun suñu biir mën nañu rayante waaye bu nit jógee fale bëgg ñoo néewal doole waa hip hop bi yëpp dañuy taxaw ne la xalaa man diir bàjjo fii doo fi jaar mobilisation bi mobilisation bi rappeurs yi def tey dafa mel ni euh, mobilisation bi rappeurs yëpp dafa mel ni dañoo bokk xeex bi tey non ça c'est-à-dire dafa am loo xam ne li Macron naan poudre de perlimpinpin c'est le game en dessous du game dañuy dem suñu dëj yi dañuy dem suñu ngénte yi dañuy dem suñu takk yi dañuy dem si suñu événement religieux yi dañu bokk lu ñu mënta séddoo mooy Sénégal donc Sénégal bu ko bokkee mais des hommes politiques qui n'ont pas des même points de vue euh, politique sax dañuy dem lante di dikkalante waxuma la ak sa mbokk bu nekkee si tolof tolof tu te dois d'être là et de le soutenir waaye wax ko dëgg jiitu ba pare après boo dikkee ci mbooloo mi nga ne leen kii kat ndéem yéenay kilifa xam nga état xajul ci nit état xajul ci moo yor doole yëpp nga naan ñu ngi leen di ñaan kat ngeen wàcc ko ndax juum na waaye nangu na ni juum na moom sax moo bind balaa ñu koy yedd ñun maa jégalu